jaajëf sama gaay ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ngeen continuer abonné ci chaîne bi di aimer vidéo yi waaw dañ koy dooree Angleterre barki démb gaynde ak Sénégal yi nga xam ne moom mooy Ismaïla Sarr doon football championship keroog gaay match boobu directeur technique bu Manchester United moom mu ngi woon ci tribune stade bi doon superviser Ismaïla Sarr parce que gaay yi xam ngeen Ismaïla Sarr fu mu toll nii Manchester United bi nga xam ne yàggoon na ko bëgg ba léegi daf koy topp keroog moom directeur technique bu Manchester United comme ni ma leen ko waxee doon na superviser Ismaïla Sarr mais danoo jot ay information yoo xam ni léegi mu concerne Ismaïla sar ñu ni Leeds United jege na trop ak fort pour jënd champion d'Afrique boobu ji Ismaïla sar ñi nga xam ni ñooy Leeds United ñu ngi waxtaan ak Ismaïla Sarr ci durée de contrat bi ak ci salaire bi nga xam ni foofu la war a am ci Leeds United mu nekk information boo xam ni dinañ ko gën a topp bu dee joueur chilien bi nga xamante ni c'est officiel léegi joueur Marseille la mu Alex Sanchez démb maa ngi dugal benn vidéo di wax ni Bamba Dieng bi muy nekk jàmbaar defoon na benn interview waxoon ni ki nga xam ne moom mooy Alex Sanchez bokk na ci bokk na ci ay idolam parce que moom mi ngi doo wax ni bokk na ci ñoom ñaar ñoo xam ne dañoo tolloo ndax moom mi ngi roy lu bari ci Alexis Sanchez mais Alexis Sanchez moom déggoon na wax Bamba Dieng jooju ba tontu ko moom nag Alexis Sanchez mu ni en tout cas lu rafet la nga am ay joueurs yoo xam ne dañ lay bëgg waaw nee na bu fekkee moom mën na ko dinañ entraîner ak Bamba lu baree baree bare té dina fexe di waxtaan ak mom mom Bamba Dieng pour expérience bi nga xamné ni am na ko moom Alexandre Cess mën di ko baxé doomu Sénégal bobu di Bamba Dieng waaw néna nak lu importance la pour fifi club bi pour expérience bi nga xamné amna am ko mu ci waxtaan ak joueur Marseille yooyu en tout cas dal féké drizan Olympique de Marseille waaw may na leen ko parce que Bamba Dieng moom en tout cas daal toogam foofu noonu moom gars yi ñu ngi koy laam-laamee waaw ñu jeexale ak euh, joru Chelsea boobu nga xam ne moom mooy Kalidou Koulibaly international Sénégal bi moom xam ngeen ni kera premier jour bi championnat lu Angleterre Premier League bi moom génn ba ci soixante-quinzième minute ci la ko jóog a génnee ci match bi moom Kalidou Koulibaly moom wax na nee na match bi xawoon naa metti parce que moom amul woon habitude du jeu ci match première ligue Angleterre championnat Angleterre parce que taamu di ko jeu daal ndax moom mooy ren mooy première saison mais nee na dina def lépp loo xam ni dina tax ñu ràññee ko ci championnat Angleterre waaw di di di di di dina ci góorgóorlu daal bu baax parce que neex championnat boobu championnat bu bu bu bu metti la bu neex la mais en tout cas daal dina ci def lépp loo xam ne daal dinañ ko fa ràññee dina ko def waaw gars yi loolu lañ leen indi woon ci information boobu seen sportive yi di leen wax ngeen di like vidéo yi waaw partager te ngeen abonné jaa ngeen def ba si beneen numéro